ñi ngi naan yow yaa ngi faralaate. continuel dama ne yónni boo nee kii ndey mbill gi. Hmm. de moo yónnee nangu nañ mais yow mi mu yónni sàcc nga nangul soo ma yónnee ma dem sàcc jël portable sëriñ ñaame yow sàcc nga yaa ma yónni yow yaa ma yónni yaa ma sant ma falsifié chiffre yaa ma ko sant <laughs> kon kay wax ji jeex na Ousmane Sonko bi mu ko xamee automatiquement ñii da leen waroon a puus ñu toog xaar. yow ak ñi ñi la ko doon falsifié yëpp daw da ngay puus toog xaar. Mhm. bañ ma lijjanti. mais su ma la bàyyee ci biir. ki ma doon jox alal ji dama naan non kii. c'est-à-dire que li wax am na lu nekk ci ginnaaw moo tax ma ne la élection yi jàll na mais am na mhm. la yàlla nañ ci yàlla alors euh, dañuy des ba tey ci élection yi dégg nga jàngat mu def ci côté opposition bi. Mhm. waxoon na ko junjoon na ne mënuñu def poids ci kanamu passif yow jàppoon nga ne sax passif bu gagné da lay bett. ba nga waxoon fi ne le 17 novembre mosoo cee am défaite. maa ngi souhaité waale happy birthday suñu doom ji donc naka ngay jàngatee taxawaayu opposition bi ak lan moo tax élection yi demee ni mu demee. ba mu doon laaj sama doom ji la judd du man dama am mbetteel ci élection yi pa hmm. Pastef am fi majorité bu toll nii. xam nga fu mu laa lu tax mu la parce que amuñu programme bu ñu indi dara lu ñu indi. que. Ah, yëpp développé eh, li ñu mën a ma ak vision 2050 bi dimbali xam nga lu tax Pastef. Hmm. ba ma yeewoon xaaju guddi du ma gëm ne Sénégalais yi mën nañ jug voté laat leen nii parce que man nag pour man as ah, incité wu ma kenn nag pour man. <laughs> Sénégal dese nañ mental tuuti quand même. yaa ngi leeralaat de. xam nga Sénégalais yi pour man dese nañ seen bopp mu ngi dox tuuti quand hmm. xam nga lu tax. lu tax. yow dangaa ñëw ne jox leen ma réew bi ma réglé ko dans deux mois. Hmm. parce que li tax ñu jox leen passif nag véritable li tax ñu jox leen réew mi lan la loolu la sénégalais yi waroon a xam. defe naa bu ñu ko xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg du ñu leen jox majorité maanaam réew mi waxuma assemblée bi de assemblée benn parti la ci réew mi. Hmm. waaye réew mi li tax ñu jël ko dénk leen ko jël ba Bassirou Diomaye Faye takkal ko càq boobu. Hmm. véritable li tax ñu dénk leen ko ñett yii la. mooy injustice. bu ñu ne woon régime bi fi nekk da ko doon def. Hmm. xëyu ndaw ñi dund bu seer bi. bu dul ñett yi duñ jot ci réew mi ñett yi régime bi fi jóge bu bu ci réussiroon ba am ci ndam. Hmm. kenn du leen fal ñoom. bu dee am na keneen ku sentir beneen bu tax ñu fal leen dama ko wax mooy dañ ne Macky Sall day làq doom dóor doom. ñu ne loolu baaxul. ñu ne dund bi dafa seer. ñu ne loolu baaxul ñu ne ndaw ñi amuñu xëy ñi ngi dugg ci gaal yi Ousmane Sonko ne la su ma ñëwee mu jeex. li nga faloon Pastef huit mois lan lañ ci def sénégalais bu ne bu doon xalaatee noonu. Hmm. di nga dóor ñi signal ne leen sa waay assemblée bi mënut a régler. mais loolu est-ce oyoful si nga jàpp ne loolu rek la Sénégalais yi fale Pastef. léegi wax ma beneen. souveraineté économique. waaw léegi génne ko ci li ma wax boo ko bëggoon nañ aussi léegi ndaw ñu nañ aussi transparence waaw léegi ci anam gi nga xamante ne moom la defee suñu contrat ak suñu diggante yeneen réew Sénégal fexe ba jiital intérêt gën ngaa suuxal sa bopp. benn la man dama lay limal rek man si maa maa ngi si sa logique dama lay limal rek. man ànd naa ak li nga wax la nga wax. voilà waaw bàyyi ma léegi souveraineté boo dégloo rek man ak yow dinañ waxtaan boo dégloo dinañ waxtaan souveraineté économique tey yaa ngi ni question yu technique question yu man nga ko am te sa population amuñu liggéey. déedéet. jeex na moo tax man la li tax ñu fal leen bokk nañu xëy ndaw ñi loolu tamit dugal ko ci xëy ndaw ñi. Hmm. transparence boobu ngay wax amul ci gouvernement bi. Hmm. ah ASR. <laughs> marché bi mu ngi nii tëwuti ci. mais ONAS nag. <laughs> mais yow Mohamed. nañ waxante sa aqulaay taala. Ah. sans far. bi ñu fi toogee ba tey gis nga benn marché buñ ñu lancé appel d'offre nga gis ko nii dimbali ma rek fi sabilillah port ONAS ASER kon loolu ba tey moo tax man la sénégalais bu xalaat loolu sa carte yi doo leen ko jox parce que da xam ne lii tax ma fal leen tamit defuñu ci dara. kon na nga jàpp ne victoire nay naïveté sénégalais yi la. ah man waaw non waaw. ñàkk ñor ñàkk ñor ñàkk mat ñàkk xalaat. Mm. ak vengeance. lajji posi opposition bi non non lajji opposition bi du ci dara opposition bi def nañ waroon a def. non ma ne lan moo tax ñu lajji ñoom. loolu la naïveté sénégalais ak ñàkk xalaat ak ñàkk éthique Pastef ak ñàkk déglu discours Pastef yi di xool li ci mën a ne ak li ci mënta ne. Hmm. déglu wuñu gis Sonko. oui dañ ko faa rek. nee na Sonko taxaw na fi Pikine tàggee xalifa général des Tidiane publiquement dafa juum mais dañoo tàccu déglu wuñ ko xoolal moom jëmm ji la si xam nga mu est-ce xam nga monaat. rab la boo xam ne bu xoolee doom ji mu suur. il fallait que Sonko ak ñii ñoom la taxaw rek. sama maam a gën a kii sama maam jantal la sama maam ku baax la jeex na. doy na mais mais mais ñi foofu tekkiwul dara ci ci ci ci électorat buy fal. li ngay wax laa waxul de li ngay wax laa waxul de dama ne man li ma wax ni mbindeef da ko dul dindi. dama ne la ku leen wateel di xalaat. Hmm. jox la réew. Hmm. doxal huit mois. nga ñëw ne ko jox ma assemblée bi moo ma teree doxal. Hmm. te mu leer na la xëyu ndaw ñi yoonu assemblée newu ci. nañ waxante dëgg xëyu ndaw ñi xam nga ñan ñoo koy joxe entreprise yi ci biir réew mi ñoom ngay dooleel ñu recruter. mais assemblée mën na ko yombal. nu mu ko ci naka. bu ñu basé woo ci affaire Prodac yu ñu tegoon. waaw comprendre nga ba léegi yow gisoo benn dag bu existé. lu ci yoon assemblée lu yoonal Prodac à travers assemblée nationale mën nañu def benn ot cour boo xamante ne dinañu attewaat mbir yi mu delloosiwaat koppar gi ñu taxawal. dag yi ndaw yi am xëy fii man maa la ko wax. fii gis nga nit moom boo demee ba ne kii sàcc na milliard. Hmm. mu leer jël na milliard. te yow mënoo gis milliard bi perte mais dafa am yoon fu muy jaar. pour a gis nga man li ngay wax dama ne. waaw <laughs> ah. Ousmane bu ne ma woon Serigne Niang mi du ma jël ma ma Mamoun Ndiouk mais sama doomu nijaay sàcc na milliard. <laughs> Eh. te man mu leer na ma ne Mamoun ni jël na milliard. Hmm. mais Ousmane Sonko mënul gis milliard bi dama naan ko yii sama waa ji perte nga. d'accord kaso nga koy yóbbu. mais yow doo jot milliard. kon xam nga ne alal jooju mënul ñawaat hmm. du ñëwaat ku la wax day ñëwaat waxul dëgg mais nag. Ousmane mënut a wër sàcc. Hmm. parce que daa fal ñoo xam ne nee na ñoom ay sàcc lañ. te sëriñ it wax na ne transhumance yi xam nga joué na ci seen score kon am nañ mérite. non soutien wala transhumant. transhumant lañ du benn soutien bu leen ko rafetal ñii bu ñu bëggee lekk yàpp mbaam xuux sax dañ naan xar la ñoom moom lu ñu bëgg lañ koy modifier bañ demee dialogue ak Macky Sall ne jubóo nañ ñetti point ba ñëwee leneen lañ ko tuddee. sa euh. waay passif majorité ak cent député mille député vraiment dañ koy waxaat fii rek. Hmm. du am changement. que soppeeku ñoom ñooy soppeeku soppi doxalin la mais yoon bi ñu jël. bu dee nii lañ nar a continuer. billaay réew mi ci lekk ñax lañ jëm. d'accord alo euh, Serigne dafa am looy intervenir par rapport ak. waaw bien sûr bien sûr parce que dafa bëri hmm. ay dérives yu am. waaw ci li Abdou Abdou Nguer wax. et ça veut dire que maîtriser wul état maîtriser wul également développement ak souveraineté. Hmm. xam nga Pastef. programme a tax ñu accéder au pouvoir benn Pastef hmm. programme a tax ñu tàllaat sénégalais yi laajaat leen sénégalais yi jox leen assemblée nationale hmm. Ousmane Sonko c'est le seul candidat ci candidat yi ñu xam yi nga xamante ni am nañ tur nit ñi ñu ngi leen di bàyyi xel hmm. c'est le seul bu décliner un programme devant des milliers de sénégalais nit ñi taxaw di ko déglu moom moo ko fi def ñeneen ñi si des ñëpp amuñu programme c' est leur souci c' est leur seul wax naa la ko fii. mooy xëy gis Ousmane Sonko féewaloo ak Bassirou Diomaye fay loolu rek muy seen programme beneen bi xaar lu ruus rek ci communication Ousmane Sonko ñu jël loolu def ko programme di ko wax ay moo ñu waxoon lii respecté wul lii nangam ak nangam man ci moment boo xamante ni aujourd'hui sénégalais yi lu ñu gën soxla mooy nga wax leen fan nga jëm ak boo demee assemblée nationale lan nga yéene def. pour sénégalais yi Ousmane Sonko dama ne la am na mérite pourquoi am na mérite dafa transformer waat la vie politique sénégalaise fan nga daan gis ñu dem ci campagne électorale Ousmane Sonko dem ci benn proximité boo xamante ni dañu leen daan exclure ci débat public yi fexe ba proximité boobu mu invité la ci lu soxal réew mi à travers comment ci pôle yi mu dem ma wax la ko fi keroog Ousmane Sonko gagné rek la mënoon a def. mais mais est ni ngay waxee ne dafa transformer euh, l'espace politique bi est-ce que aussi Abdou Nguer d'une part du am raison que ni peut-être waroon nañ euh, fexe nu mu tegee ba transformer dundu sénégalais pour que tamit waaw mais euh, mais ci loolu lañ ne loolu ci logique boobu fa laa jëm ok allez-y Sonko est en train de transformer hmm. li nga xam ne ni ko mooy dundinu sénégalais yi waaye nag boo gàttee xam-xam doo xam fi ñu jëm boo gàttee xam-xam doo mën a xam ni on naa un gouvernement avec de ministres très compétent yu xam ni ñu leen jox te ñu ngi liggéey te boolewuñ ci wax yow gis nga le travail qui est en train de faire par Mabouba Diagne ministre de l'agriculture. Mm-hmm. tu l'as vu un travail extraordinaire. extraordinaire dans le monde rural. ba gerte gi ñor il est en de le faire. ba mbay mi ñor am na am na ñu tudd ñu nekkoon ci mag yi. ñoo xamante ne peut-être jàpp na ne laale nag. Euh, crise économique bi ñu boobu noonu ak euh, gonflement non fa laa jëm xam nga danga ma laaj si naka la Sonko est warul jublu ci bëgg-bëgg sénégalais mi ngi si. ok xam nga réew mi ñoom fi ñu ko fekk si ak yàqu-yàqu ak dëng-dëng ba nga xamante ne tey moo jur impact yu négatif yi sénégalais yi du dund. Hmm. ba yóbbu leen ci souffrance boobu réglé ko du ñaari fan du ñetti fan du ñeenti fan. ministre boo fi wax tey moo wax la la muy liggéey ñoom ñëpp ñu ngi liggéey liggéey bu am solo bu extraordinaire te boolewuñ ko wax ak coow. ñu ngi ci logique boobu Sénégal nee nga de Sénégal dafa métti est-ce que liir ngeen rapport bi nga xam génne nañ ko si wàllu importation ak exportation boo defee naa la pop le pop moo ko génne léegi. vox pop yi vox pop yi la wax mu ne Sénégal fi mu toll nii fii ñu toll nii exportation yi moo ëpp doole importation yi te réew mu jëm en vers le développement foofu lañ koy nattee maanaam say exportation moo war a ëpp doole say importation pour que balance bi mën a nekk un balance équilibré. rapport baa ngi nii vox populaire baa ngi nii. maanaam pour pour pour ñu ko comprendre lu Sénégal di génne fii di ko jaay ji. bi ci léegi moo ëpp moo ëpp la muy jëlee. bi loolu nag signe la vers l' émergence vers le développement. parce que réew moo xamante ni la muy jéggaani moo ëpp lay génn réew moom mu ngi si ndóol ci kaw la jëm. léegi nag dafa basé wu peut-être ci pétrole bi commencé génn ak. gaz bi pétrole bi ak or bi ak yenn kii yoo xamante ni c'est des kii alimentaires mi ngi ci rap vox populaire bi mooy li ma la waxoon ñii amuñu temps duñu lire <laughs> xamuñu lu xew ay rapport la ñu ngi fii tege dama ne la gouvernement bi nga bañ leen nga nangul leen sont en train de faire un travail extraordinaire pour transformer la vie des Sénégalais mmh. en termes de régime alimentaire mais nag boobu boo nekkee koo xamante ni bëggoo gis seen lu baax loolu doo ko wax donte nag am na loo xamante ni des na mais ñu ngi si góorgóorlu mm-hmm. xëy na peut-être bu ñu demee à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale aussi il ne faut nekk benn bërëb bu ñuy minimiser mm-hmm. li nga wax dëgg la assemblée nationale day participer ci li transformer la vie des sénégalais. oui dañ ci am kàddu parce que les réformes économiques day jaar assemblée nationale. Mm. les réformes judiciaires dafay jaar assemblée nationale souveraineté alimentaire bi ñu bëgg pour ay at ñu am ko mais réforme économique moo ko mën a indi. Mm. réforme économique yooyu ay loi ñoo koy jëmmal fu mu jëm fan la jëm du assemblée. kon assemblée nationale am na kàddu. kon am na kàddu moo tax ma ni la boo ñàkkee xam-xam nag ba mel ni man doo xam rôle bi assemblée nationale mën a jouer pour la transformation hmm. de la vie des beneen bi wax nañ ci li nga xamee ni que mooy euh, chiffres yi yi nga xam Ousmane Sonko waxoon na ko hmm. sëriñ ku lay bindal ay note ci téléphone bi kenn bindalu ma man maa jël note di bind ah, man maa doon jël note est-ce que <laughs> la ma ko fi waxoon keroog lu bëgg a fay non loolu moom c'est fini moom génn naa débat boobu mais Mouhamed Sonko daa taxaw ni chiffres yii dañ ko falsifié hmm. lan la si FMI wax dara FMI dafa ni ànd nag Sénégal ci logique gu transparence bon gouvernance bi nga xamante ni moom la woote hmm. ñu ni woon am ñu ni bailleurs yi de dinañ gën a daw Sénégal ndax Ousmane Sonko tiital na leen ñi ko waxoon ne si si wàllum politique ma jàmbal jaañ lañ mooy mooy mooy seen arxuraan ci politique lu mu wax rek loolu la ñuy gëm muy Abdou ngeer nii. mais ba tey sax Nguer insisté insisté si nee na loolu bëggul mu doon dëgg parce que bu nekkee dëgg mën na dugal Sénégal ci guuta waaw xam nga lool dinañ daw. mais duñ daw parce que moom laa moom laay tontu nii ne ko. Hmm. moom xalif général la jàppee ma jàmbal jaañ ci politique ba lu ma jàmbal wax dëgg la. waa léegi bu fekkee ma jàmbal moom moom nga jàppee arxuraan si politique ma jàmbal jaañ nee na. Sénégal bokk na si dix destination yi nga xamante ni bailleurs yi ak investisseurs yi fi lañ gën a dugg c'est Madiambal qui a dit ça. waaw gën a jublu boog rek exi. la luy gën a jublu gën a a exi mën na jublu mais du ragal wax rek non non exi. dama lay wax dama lay may. léegi FMI lan wax dama lay wax. dama ne la taxawal ma ñëw. juin mais dama ne la. lu waral loolu. ngeer yéen tey ngeen bëgg FMI tey ngeen gëm FMI dama ne la gis nga Arabie Saoudite lañu wax dafa gis nga aujourd'hui on est dans un monde ouvert. Ah. y a pas que dama la koy xamal gis nga xoolal adduna bi dafa ubbeeku bu dul FMI di keneen bu dul banque mondiale di keneen. am na y a des pays yu nga xamante ni xoolal lijjantiwuñ FMI lijjantiwuñ banque mondiale te seen financement yëpp ñu ngi koy capter à 100 pour cent di développer seen ay projets de développement. il faut ngeen gëm seen bopp. xam nga lan mooy gëm seen bopp il faut bâtir suñu propre richesse pour ëllëg. bañ a ci ay institutions yi nga xamante ni c'est des institutions yoo xamante ni lu ñuy gën a dem dañuy gën a ndóol ré plongé réew mi ci ak ndóol ci ak njàkk. ndax ngeen fay dem di dama ne la waa ji loo ko bañ bañ bañ. waa ji loo ko bañ bañ bañ. dafa gëm mooy Sonko mooy Sonko dafa gëm boppam. Hmm. gëm ni Sénégal ëllëg war na mën a tabax richesse su boppam. ca loolu la ne moo tax bi mu ñëwee ci ak gouvernement dañu ne l'assiette fiscale dañ koy gën a yaatal ba ñëpp di fay impo hmm. ñëpp di ko fay. entreprise yee nekk na poñ bu am solo ci seen vision. Sénégal 2050 gars yi di xoolal gars di tëdd yuuxu Anta Babacar Ngom mii ak Sedima naan dañuy jaay lenn ci seen ay part di napp gouvernement bi. yaakaar ni gars yi ay chantage wala ak ay pression mooy tax ñu dallu ginnaaw ci seen politique fiscale bi. Hmm. léegi nag si politique fiscale boobu ak redressement fiscal ñi bañoon na fay impôt te ñuy fay si suuf ñaata la généré comme ressource Sénégal. dara keroog gis nga ko ñu bind ko. dara ñu ne la revenu yi dafa gën a yokk. Hmm. parce que ñi daawul fay ñoo fay. am na ñuy fay si suuf. te bëgguñu fësal ni ñu ngi fay. ñi fi doon yuuxu yëpp. mais nag ce que buñ si miser que dégg naa ngeer benn jour monsieur buñ ci miser le trop du dem ba xoj yenn entreprise ñu tëj te bu ñu tëjee xëy ndaw yi mën nañ jàpp ne dafay wàññeeku. waaw mais kon kay mooy xanaa buñ fay impôt. trop de impôt tuuti de impôt. Ah, xanaa buñ fay impôt man xam nga je veux un un un wax noonu am na solo de. bu bari day rey impôt. Ah, waaw waaw. juste ñoo ko gën a xam ne. nag da nga koy xont ba mu suur. non kii kii amul xam-xam de. ah baax na non li ngay wax nii du xam-xam réew lu muy dunde réew la lay dundee. waaye du impôt kese lay dundee. réew impôt lay dundee impôt kese lay dundee. réew. ma ne du impôt kese lay dundee. demal impôt gën a tuuti ci li muy dundee en tout cas réew yi développé ngeer fooye wuñ ko de. boo demee France boo demee même jour. africain yi nga xam te ne bëgguñ mais dañoo fexe sax dañuy daw yow yow yow fay yow man koo fay. te euh, Mouhamed boo demee France gii boo demee France. oui tu vois un Sénégalais par exemple par exemple qui gagne. Hmm. par exemple un million par mois. bu ko totaliser bu génnee impôt yi mu war a fay ak nangam ak nangam boo moytuwul cinq cent cinq cent cinq cent mille francs CFA moo koy dese y' a beaucoup de Sénégalais qui gagnent bien leur vie en France. Hmm. mais bu ñu la waxee lañ leen di dagg ci ay impôt ak yooya ah da ngay jommi kon dama loolu pour rejoindre li nga wax un petit peu mooy impôt amul réew mu sérieux mu koy fowe. tu as vu. Hmm. léegi nag ñoom ay impôtier lañ xam nañ njëriñu impôt ci république ci réew te ñun suñu réew yi nga xam ay réew yu ndóol lañ. tuavi dañuy mën a jafandiku ci impo c'est-à-dire waxuñu nag impôt boo xamante ni dafay gaañ les entreprises mais mooy li ma la wax un impôt juste et équilibré. juste et équilibré booboo amul. juste et équilibré. looloo am nag déedéet. ñoom li ñu tegoon pression fiscale bi yëpp. amul lu ñu fekk la. voilà ñu fekk la. donc nag yaa a un civisme fiscal boo xamante ni si ñoom ñoo ñu doon yuuxu ni tey dañ leen bëgg a asphyxier financièrement si ñoom la waroon njëkkee. Hmm. kon daal jàpp naa ne aujourd'hui ak lu waay mën a wax itam. parce que wala nekk di ay chroniqueur dañu war a xool lu baax ak lu bon mais mënuloo jël sa bët yépp orienté ko si lu bon rek hmm. ne li man moom gouvernement mu baax ak mu bon lépp bon man jàpp naa ne loolu moom bu ñu ko hmm. defee on est plus dans l' analyse politique eh opposition bi li leen jural seen défaite xam nañ ko hmm. non seulement leurs alliances là c'est des alliances contre nature yoo xam amul benn njëriñ ay erreur kas kasa dafa mel ni posé wul poids bu ñu doon xaar ci bi ak yenn mënu ko mënul dafa mënul ne xam nga Macky Sall ak Ousmane Sonko lu tax ñu waxoon ni bi yeeyu askan wi di am euh, di témboo ak le régime de Macky Sall c'est parce que bipolarisation dafa amoon ci vie politique bi loo mënoon wax da ngay xam ni am na ñaari pôle yu am force yu taxaw mu yeeyu askan wi ak la la Benno Bokk Yaakaar mais est-ce que fii on on peut parler de bipolarisation dans la vie politique amul benn grand pôle moo fi ne hmm. mu di Pastef ak ñi mu àndal boo génnee Pastef mënoo ma tuddal beneen pôle bu am envergure ci espace politique bi fii. mënoo ma expliquer loolu. et pourtant récemment la président Macky Sall ñàkk nguur jàpp nañ ne sax Abdoulaye Wade avait fait mieux que lui ba mu ñëwaatee pour laaj baatu askan bi. législative mais li Amadou Ba tibb tibb ci électorat am bu ñu ko xeeb. Hmm. Amadou Ba du dafa génn ñan ak ñan ak ñan la Amadou Ba yóbbaale. Amadou Ba résistance bi lu ñu ko bañal résistance bi mu xaw a am tuuti lu ko Hmm. parce que dafa am électorat bu mu jël ci APR bu am dool doole Macky Sall ña ko njëkk bàyyi c'est son premier propre frère. mais est-ce que autrement wax ne force benn Bokk Yaakaar dafa reposer woon peut-être ci parti socialiste ak AFP. non ñooñu ay parti la parti de contribution yoo xam seen contribution yi amul woon solo tu as vu moo amoon benn moom amoon na moom kii électorat personnel bu ko bu mu mëmal boppam. Hmm. parce que support bu am solo bi ñuy wax bu jógee ci AFP wala parti socialiste amoon na fa. tu as mais dafa am ay ténor yoo xamante ne si diggante bi dañoo quitté le président Macky Sall te si des ténors yoo xamante ne en politique. dañu amoon une représentativité dañu la réalité des choses. Hmm. opposition bi man ba àllaaxira Sonko yow kii. ba àllaaxira kii woon xalaat Pastef la yi wax ne am nañ doole kay. benn bopp transhumant sax nga naan transhumant. dama ne la. ba àllaaxira si ku ma mës dégg may wax damaa mës wax ni non yàpp mbaam moom damaa mës wax ni yàpp mbaam moom. Ousmane Sonko ak ñi mu àndal dañuy doon yàq seen carburant rek. billaay bu ñu tëddoon sax nelaw dañuy gañ. parce que amul amul y' a rien y' a rien c' d' accord yi wane na ko. Hmm. gis nga li ñu leen gañee gañee boo xamante ni ana sàmm sa kàddu yi ñu doon wax. sàmm sa kàddu man sàmm sa kàddu yaakaaroon nañ sax ñooy raw amadu Ba ak seen wax ju bëri ji ndaw ñi émigration clandestine bi wedd nañ gaa yi marchand ambulant wedd nañ gaa yi foofu xam naa après dinaa interpeller Nguer mais jaadu nañu def si benn jàngat parce que Nguer sànq ñu ne ko ne benn nouvelle génération politique mooy génn ñu mën a jàpp ne sàmm sa kàddu bokk nañ ci nouvelle génération politique boobu mais malheureusement pour ñoom dañu gis ne askan wi joxuñ leen bopp loolu lan moo ko mën a. xam nga lu ko mën a expliquer. gis nga nag bu ñu muusante jaayante muusante suñu biir. Hmm. Nguer musul wax loolu musul wax ni am na benn nouvelle génération. non sànq nii wax na ko sànq. waaw dama ne waxuma la tey de. ah ok par le passé émission tey bi. dama ne la ginnaaw defet bi seen discours yëpp soppi nañ ko. tey la ñuy xam ne nag mm, dañ koo njar léegi. léegi nu ngi koy njar di ko rafetal <laughs> njar moo fi Nguer mii bu dee yàgg ko dëgg dafa yàgg a wax ni Pastef du gagné. aussi musu si wax aw. mooy tuddee ngeer ko rafetal tey de moom amoon na si bu rëy wax dëgg yàlla. dafa doon wax ni. Mm. Pastef du ñu gagné. te fi mu ko demoon fi mu ko tegoon man fi mu ko tegoon hmm. fi ko tegoon wax naa la ko léegi si ay analyse yoo xamante ni c'est pas scientifique yow moom amoo fee lay dem toog si jaaykatu café bee waaw benn waay romb ko fa am kersaam sa waay man da wedd naa passé mu ñëw def loolu une réalité <laughs> gis nga booy analyser si loolu nga koy teg si lu scientifique hmm. lu lay wan ni Pastef dina ñàkk. Ah, te fii laa ko teg ci argument bi ndax configuration politique yi acteurs yi ni ñu booloo baaxul opposition bi nangam ak nangam ni ñu taxawee baax na bu ñu demee dañuy gañ. rapidement le cas sàmm sa kàddu ma dem si ngeer